asalaamaaleykum internet Leewtoo TV mercredi 22 juillet ñu ñëw ak yéen di gën a fës ci yéen kaay ñu tàmbali ko ak euh, sunu lamb sunu lamb tey andil ñu à une. guy gi mu ñëw nag ji wax euh, li nga xam ne ni moo ko metti ci diggante ak euh, waa waa GFM moom nag nee na dañ ko bëgg sacrifier parce que nag fayuñu ko lenn lu dul vingt cinq millions pour mu bëree ki nga xam ne ni mooy rëg-rëg mu nekk somme boo xam ne ni xalaatu ko encaissé pour dajeek euh, gonek caaroy bi nee na nag contre mi ngi encaissé trente cinq millions comme nag du wàññi cachet boobu noonu pour bëreek ki nga xam ne ni mooy rëg nee na suñu bëggee combat bi am nañ ko fay li nga xam ne ni moom la moom la réclamé ñu jigee ci guy gi daal di dem euh, fële ca euh, Pikine fekk fa Abdou Bakhoum Abdou baaxum nag euh, di ñëw ci combat am ak ak Ama Baldé nee na nag mi ngi garder espoir bu baax kii di nga xam ne mooy poulain am dina bëre combat royal bi yàlla incha allah may ko ci ndam ci kaw Modou ba tey ñu des euh, ci waa pikin suñu la lamb andil ñu am euh, seen euh, Boy Niang ak ki nga xam ne ni mooy Ama Baldé ñoom ñëpp am combat nag war a wàcc mu tuddee ko les VIP de Pikine en mission commando maanaam saison bi di ñëw ñoom nag ñu ngi leen xaar bu baax a baax ba tey dañuy des Pikine ak ki nga xam ne ni mooy Pape Sarr di promoteur bu bees Pape Sarr nag daal di ñëw ci beneen combat mooy diggante ne ko Rell ak ne ko Rell nag euh, di euh, di mbër boo xam ne amal ko adversaire euh, jafe na ba tax na def na ay saison blanche yu bëri mais déwén mun nañ ko xaar ci li nga xam ne nii mooy saison bi keneen koo xam ne nag suñu lamb ñëw na ci moom muy Modou Anta Modou Anta nag di mbër boo xam ne nag gëj na bëri depuis bi nga xam ne daan na bàyyi mañoon fële ca cees moom nag nee na dafa bëgg bëri daal di wàcc takk ngembam parce que tamit am na fi ay adversaire ñu daal di dem ci ki nga xam ne nii mooy Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 nag ginnaaw combat am ak ñàkk jariñu coow bi fa jiboon Alioune Seye 2 dañ ko sanctionné woon six mois ferme léegi nag moom li koy li problème am mooy nee na na promoteur bi di xam ne mooy Xaarim Samb ñëw daal di koy leeral fan la war a taxawee ndax day dégg ñu naan combat bi dañ ko war a bërewaat wala duñ ko waat amu ci lu leer na Xaarim Samb ñëw wax ak ñoom ak ci ban anam la ñuy bërewaatee combat bi su fekkee di loolu dina am ñu dem fële ca Kaolack fekk fa bëri ñoom ñu ñëw nag euh, daal di taxaw association de lutteurs en activité bu Kaolack ñu daal di jiital ki nga xam ne nii mooy euh, Double Tyson pour mu diriger boobu la association ñu dem fële ca record record tamit ñëw ak ñun ak euh, waa Pikine ba tey nee na est-ce que Ama Baldé Eumeu Sène ak euh, Boy Niang dinañ réédité euh, exploit wu 2018 bi maanaam 2018 ñoom ñëpp amoon ndam Eumeu ci la déggee roi des arènes ci kanamu Bombardier Ama daal di daan ki nga xam ne ni mooy Papa Sow Boy Niang daan ki nga xam ne ni mooy Sa Thiès nee na ndax bi yoon daan dañu réussir defaat lu mel noonu Eumeu seen war a bërewaat ak Bombardier Boy Niang 2 am tafaatin nekk mu tuddee ko labyrinthe boo xam xam ne nii ci la war a jaar pour mun a dem euh, viser li mooy couronne bi Ama balde nag bi yoon nag am Modou Lo muy benn combat royal boo xam ne ñu ngi ko ciy xaar bu baax a baax ñu dem ba tey si tafaatin booy Boy Niang de record ñëwaat ak ñun ne combat boobu nga xam ne ñu ngi ko prévoir en 2020 2021 nee na nag euh, combat boo xam ne mille et un risque la pour euh, ñaari mbër yëpp parce que ku nekk am na ci loo xam ne ni mi ngi la ciy xaar record ñëw ak ñun ba tey ak école de lutte Papa Kane nee na nag euh, trois victoires lañ def trois défaites mu nekk cinquante pour cent de réussite mu def ko nag euh, mi figue mi raisin baaxul te mais tamit bonul mun ñu jóge foofu dem euh, fële ca leewtoo point net fekk fa Yékini Junior ñuy laaj nag Yékini Junior ginnaaw bi nga xam ne ni mooy Boy Niang am na combat kan lañ war a mën a jox ki nga xam ne ni mooy Yékini Junior ginnaaw bi mu toogee ne moom combat mag Modou Anta revanche bi teel na revanche ak Moussa Ndoye tamit toll nii kan la war a mën a dajeel pour jóge ci saison blanche ndax depuis 2018 ba léegi bëriwul li lañ leen andiloon ci li gën a fës ci yéen kaay. salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen revue de la comme ni ñu koy defee chaque jour ginnaaw euh, revue bi ñu daal di dem ci li nga xam ne mooy jàngat bi ànd seek euh, Ndeye Coumba Fall Ndeye Coumba nuyu naa la. Aïcha madame Nia yaayu Paate yaayu ñaga chéri Mouhamed Niang maa ngi lay nuyu. Euh, nekk ma ñu dem euh, ci dugg ci li xam ne ni mooy euh, waxtaan bi dem fekk guy gi ci suñu lamb guy gi nag tey ñëw ak meram nee na nag GFM dañ koo bëgg sacrifier parce que liñ ko fay pour mu bëreeg rëg-rëg dafa ndaw torop Aïcha Gouye Gui de nekku Sénégal waaye mi ngi États-Unis sànni daal ay misilam fii nga xam ni moom mooy Sénégal comme li nga ko waxee rek journaux yu bëree ñëw nañ si si par rapport ak réaction mu li nga xam moom lañ ko proposé mi ngi apporté ay précisions si combat bi nga xam ni ak Reug Reug boobu taxawagul moom nag moom nee na moom ah nangu kenn ku ko sacrifié ndax waa GFM 25 millions kese lañ ko fay te moom combat bu mujj bi ak Siteu ni nga ko fay 35 millions donc moom nee na dafa jàpp daal gars yi dañ ko bëgg sacrifier ay Faye mais nag sacrifier moom xaw naa rëy trop. <laughs> waaw léegi ma dañuy dem euh, fekk fa tamit euh, Abdou baaxum di jeex ci Ama Baldé moom nag euh, mi ngi ñëw ci ay attentes am ak combat bi nga xam ne Poulain war na ko bëre contre Modou Lo. waaw Abdou Bakhaw nag mu ngi fay leeral xam nga ni ngi laam-laamee naan combat euh, Modou Lo ak ki nga xam ni mooy Ama Baldé du am mm-hmm. moom nag moom mooy manager ki nga xam ne mooy Ama Baldé moom daan jàpp na ni combat bi déwén incha allah ko bëreet su ko waxee nag xëy na am na fu leer fu ma ko teg xëy na tamit def si ko ak staff Luc Nicolas moom moo tax mu wax loolu léegi nag lañu wax rek comme ni Babacar wax nañu yónni yàgg ba xam mm-hmm. ñu yónni yàgg ba xam parce que des affaire yi tamit euh, des na ñu dem euh, tamit fekk ko ci record ak sunu lamb ñoom ñëpp ñëw nag ci ci 3 VIP yi nekk Pikine yi nga xam ne am nañ combat muy Ama Baldé di Boy Niang 2 di seen mag tamit Eumeu seen mais record tam moom di laajte ndax dinañ euh, ñëw defaat exploit bi nga xam ne defoon nañ ko 2018 mooy am ñetti ndam Euh, comme ni nga wax rek sunu lamb ñëw nañ si euh, exploit bi waa Pikine defoon 2018 euh, record aussi si xalima abonu tamit ñëw na tamit si papier bu mel noonu ñoom daal 2018 Pikine moom neex la woon nañu trop ama seen si si kaw ki nga xam ne moom mooy Bombardier ki nga xam ne mooy Boy Niang tamit ñëw daan ki nga xam ne mooy Sa Thiès Ama Baldé ñëw tamit jaar tamit si kaw Papa Sow ni ñu wax nag comme que ñoom ñett ñëpp am nañu combat déwén nee ñu nag est-ce que tamit duñ delloowaat buum sa booy booy ba. Ah, waaw ba tey ñu ngi xaar saison bi li des bëreetul ah, ndeykum ba ñu dem ci Abou Ndour ba tey moom nag it ñëw na ci combat Tapha Tine booy Boy de 2 tuddee ko un combat à mille et un risques. pour ñoom ñaar ñëpp nag waaw ñoom ñaar ñëpp combat à la comme ni ko Abou waxee rek si record euh, ki nga xam ni moom mooy Tapha mais dañoo fàttali ko xëy na làmb la Tapha nag loolu loolu ko sax moo ko gën sonal moo tax mu wàccoon dem bëre ak ki nga xam ne moom mooy Yékini Junior si combat bi nga xam ne Leewtoo production moo ko tëggoon mu yàlla def mu daan boobu ba léegi nag euh, presque ñaari saison am woon adversaire parce que boobu ba léegi VIP yi bëgguñu ko jox chance nee ñu nag su fekkee nag tey jii ki nga xam ne mooy Boy daan na ko day gën a wéeru rek comme ni ko yàgg maar di waxee ki nga xam ne moom mooy Boy Niang moom jéem na essayé yéeg si xam ne moom mooy Lac de Guiers toujours nag si xalima Abou Nour mais finalement combat boobu Lac de Guiers da ko wéer maanaam da ko daan léegi nag jox nañ ko nag beneen VIP dañuy xaar ba xam nagam nag dina réussir ci combat bi nga xam ni moom ak euh, euh, moom am na ko ak VIP bi nga xam ni moom mooy Tapha comme daal ñoom ñaar ñëpp combat à risque lañu jël. waaw ndeykum ba ñu dem tamit euh, ci beneen combat fekk ko ci suñu lamb comme ca record muy Pape Sarr di promoteur moom nag daal di ñëw taxawal ne ko réel ak Marley.

victoire jógee marqué nga toog na ñetti at bëreewul si victoire la jógee combat bu neex lay doon euh, Aïcha waaw ñu dem euh, sunu laa mu fekk fa ki nga xam ne mooy Modou Anta Modou Anta nag ay combat ñu koy plébiscité boobu ba léegi adversaire yu bëri di génn mais nag ba tey waxaguñ ci lu leer amagul combat bu taxaw sunu làmb nag ñëw na ci moom après saison blanche yi nga xam ne def na ko bi mu daanee bàyyi ma kan moo war a dimbali Modou Anta mu ñëwaat ci arène bi. waaw Modou Anta xëy na tamit euh, en général li ñuy wax mbër yi nekk ci région yi ñu am problème en général pour ñëw fi Dakar pour bëre mais Modou Modou Anta ci làmb ji la bokk parce que soo gisee euh, am na yu mag yoo xam ne bëri na ko ki su mel ni comme Yékini Junior ak ki nga xam ne moom mooy Baye Mandione donc dafa bokk ci làmb ji donc nag naka promoteur yi gestu ak aussi euh, adverse potentiel adversaire yi bëri nañ ci làmb ji dafa war a bokk ci sekk yi nga xam ne mooy comme genre yu sekk ñoom ñoom Sa Thiès yooyu yëpp espoir confirmé yooyu yëpp Mamoud Anta am na si am na si wàll léegi daal nañu nañu rek ba xam nagam déwén promoteur dañ ko gees bu mun takkaar si ngeen parce que si si làmbam parce am na place bu bu yaatu si làmb ji Aïcha ñu jeexal ak euh, Leewtoo point net fekk fa nga xam ne ni mooy euh, Yékini Junior Yékini Junior nag euh, moom it bu yàggul dara wax na li nga xam ne ni ñooy adversaire am mais daf ci génne woon ñi nga xam ne ñooy Modou Anta Amaneex Garga mboose moom daal fi mu tegoon bëtam mooy son Sa ak ñoom ñoom Reug Reug sax da ko daf ko dafa bàyyi woon mu set daal nee na Reug Reug sax bu heure bu jotee dinañ bëre mais moom fi mu tegoon bëtam daal Sa Thiès am na combat Garga am na combat ki nga xam ne nii mooy Lac de Guiers est-ce que dina nangu jël euh, ki nga xam ne mooy si Junior Kaaw Yékini Junior waaw Aïcha comme ni nga ko waxee rek xam nga Kaaw Yékini Junior dafay xaw a critique tuuti parce que moom ñi mu bëgg di bëreel ñoom ñëpp pratiquement am nañu euh, am nañu adversaire am nañu combat te moom tey ji su fekkee dafa bëgg bëree ak ki nga xam ne Amaneex Amaneex waxoon na si mm-hmm. journal sur lamb nee na moom bëriwul ak Yékini Junior maanaam lamb ji xam nga tax mu compliqué des fois si mbëri yow ñi ngay bëgg a ñooñu duñu ñu duñu la bëgg jox chance xam nga moom tey mi ngi jógee si si defet la jógee Yékini Junior Ama Baldé euh, Amaneex jóge si si si si victoire xam nga moom day jàpp ni tey jii xëy na moom war na mën a yéeg beneen palier maanaam bëri ak ñi nga xam ni ñoom ne presque jege nañ tuuti ténor yi ama ne xëy na foo teg bëtam Yékini junior moom tamit teg te malgré que am na défaite moom tamit dafa jàpp ne war a yëg voilà la daguère la en plus noo bokkoon même génération bu no joué claf bi tamit dafa jàpp ay naataangoom lañu war nañu mën a ñooñ tamit mën nañ mën jox chance Aïcha madame Niang waaw ndeykumba ci loolu la tàggoo ñi xam ne ñooy suivre seen revue de l'arène di leen ñaanal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu samay doom di nuyu seen euh, papa sama borom kër sama xarit <laughs> sama lépp macha allah yéen yàlla lafal ñu samay eh, goro samay njëkkee di nuyu sama yaay bu baax di samay mag samay rak ak fu waay mën a nekk muy soppe di nuyu sama copine sama xarit Ange Gaye Asi nuyu naa la bu baax a baax waa Aïcha comme ni nga ko waxee nu ñaan nag Amet ñaa am takk ñaareel xam nga si tabaski tabaski bi si jàllee rek war na mun takk ñaareel en ah, yàgg ma comme ça jigéen ñi jeex tamit parce que jigéen ñi ñoom macha allah dañoo sakkan lool il faut góor ma toog rek <laughs> Aïcha nag ma nuyu sama yaay mais su nuyu di nuyu ki nga xam ni moom mooy Asta di ne chéri Khadija tamit euh, depuis Parcelles Assainies ak Italie maa ngi nuyu nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya ak ki nga xam ne moom mooy Grand Fall di nuyu Abdou Gueye Baye Fall jàmm ngeen papa connecté depuis États-Unis maa ngi koy nuyu di ko jox wàccu waayam nuyu ki nga xam ne mooy Khoudia Seck Chéri A Seck yaa ngi si biir nuyu euh, euh, Jibi bàmba di supporteru di fans waa Leewtoo point net ak Leewtoo TV nuyu ki nga xam ne mooy tuuti Yaay Sarr Asi Diagne ak kan Cheikh Bass Cheikh Bass ak Moussa Dia <laughs> voilà ñoom ñëpp xeetu euh, Babacar yooyu tamit nuy Babacar di ko ziar lu bëri Aïcha waaw bu ñu dox na rendez-vous suba incha allah